alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma baad mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk di leen dénk itam di dénk sama bopp saxal fugloonte ak suñu borom tabaraka wa taala ci lu nëbb ak ci lu xeeñ gannaaw ba ñu xam ne sax ci diine sax ci dëgg gannaaw bu mu la leeree càkkutéef la boo xam ne jullit bu nekk moo war a doon sa jubluwaay bu fekkente ne bëgg ngaa tegu ci siraat al mustaqim bunt boobu di sax ci diine am na solo lool bokk na ca lay màndargaal ak am soloom bu ñu seetee société yi ñuy dund ak li nga xam ne moo ci nekk ci lu wuteeg lislaam yàlla na too jullit bi muy dund ci biir mbooloo moomu ak fitne yi nga xam ne itam dana di xew ci jamono di gaar jullit nga xam ne boo seetee mbooleem doxiinu jamono lu ci bari ci jëflante bi lu wuteeg lislaam la ci wàllu koom-koom beeg ci wàllu atte yeeg yépp jullit bi ne ci biir société boo xam ne loola fay dox ak xeeti bànneex yi nga xam ne dafa tasaaroo lool fu ñu toll ñu ngi koy aajar ak xeeti lënt lënt yi nga xam ne itam ñu ngi bari lool ay nit di ko tasaare ci turu diine di lëndëmal pas-pasi nit ñi ba diine mujj nekk lu tumuranke ba ñuy melal sax ku jàpp ci diine dëgg-dëgg di wax ne moo ku ngëpp ci aw xal ñooyam alxaabidu ala diinihi kal xaabidi ala jamb ñu ne ko ngoy ci diineem dëgg dëgg dëgg te bëgg koo dund li ko yonente bi alayhi muy dajeel moo ku ngëpp aw xal moom la ñuy nuróole sax mu gën a metti ñaareel ba suñu boo xoolee itam xew-xewi deltu gannaaw yi nuy faral di gis wala yaasu billaa nit kuy lu ba yàgg ñu gis ko mu dellu gannaaw loolu dana yóbbe jullit bi mu tiit ngir ragal loolu dal ñooñu dal ko mu mujj ci fu mel noonu loolu kon dana ko yóbbee ci mu wër di gëstu lan moo ko mën a saxal ci diine ji ba lu fitna yu bari bari bari lu coow yu bari bari bari ak lënt lënt yi mu sax ci diineem ba ca dellu gannaaw ba ba muy dajeeg boroomam tabaraka wa bokk na ca li tax bunt bi itam doon bunt bu yitteel bunt bi dafa lënkaloo ak xolu doomu aadama ndax xam ngeen ne pas-pas ci xol lay nekk te yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xol ne moo gën a mën a wëlbatiku cin lu baax bay wañax noonu ndox mi di yëngutoo ci biir cin cin li di jóg ka dal nee na xolu doomu aadama moo gën a tar ab yëngutu ndox moomu di bax ci biir cin li mu dellu joxewaat beneen misaal moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xol mu ne xol day ñi ngi ko tuddee xol ndax wëlbatiku gi muy wëlbatiku innama summiya al qalbu min taqallubihi mu ne xol boo ko doon misaal dafa mel ne aw dunq woo xam ne dafa ne ci ab àll tafu ci saako garab nee na bu ngelaw li ñëwee di ko wëlbati di ko jëllar bi ak a tëralaat noonu la xolu doomu aadama mel xol doomu aadama ngelaw yi koy wëlbati mooy bànneex yi ak lënt-lënt yi looloo tax kon aajo woon a am ay wasaa'il am ay jumtukaay yu muy dëgëral la xolam ba nga xam ne bu ngelawul bànneex ñëwee ngelawul lënt-lënt ñëw ngelawul neen ñëw xolam moom sax rek fi mu saxoon ne dégg bañ a yëngut waaye ci yërmande suñu borom tabaraka wa taala leeralal nanu ci alquranul karim ak ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ci siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëfandikukaay yoo xam ne suñu ko jëfandikoo suñu xol dana ne dégg ci diina tal ba ba ñuy dajeeg suñu borom tabaraka wa taala njëfandikukaay yooyu ba ca jiitu mooy alquran alquran mu màgg mii nga xam ne mooy njëfandikukaay bi jiitu ci man laa saxal ci diine mooy alquranul karim suñu borom tabaraka wa taala wax na ci biir alquran xam la ne alquran li tax suñu borom tabaraka wa taala wàccewu ko benn yoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu may ci ko wàcce ndànk ndànk ndànk ba ba muy jeex ci diirum ñaar fukki at ak nee na loolu li ko waral ngir mu nekk loo xam ne day saxal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci pas-pasam ak ci diine te loolu suñu borom na ci doon tontu lëndëm lëndëm yi nga xam ne yéefar yi doon nañ ko jéem a andi naan mu te mu lu tee woon ñu wàcce alquran benn yoon lawla nuzila haata alquranu jumla jumlatan waxida suñ borom ne kadalik li nu sabbita bihi fuaadak alquran ne nii laa koy wàccee ndànk-ndànk ngir ma saxal ci sab xol naka noonu itam jullit bi noonu la war di jànge alquran wóoru rek jàng alquran mokkal ko naan de man alquran pare naa ci déedéet garab la gooy naan garab buñ la ko joxoon doo ko naan benn yoon rek daal di jeex waaye da ngay sàmmanteeg heure yi boo naanee suba naan bëccëg naan ngoon ëllëg nga naanaat waaye buñ la bindaloo tal ordonnance tey nga daal di dal ji paquet yëpp daal di naan pikir yëpp nga pikiroo ko benn bés kooku alkande lay gën a jege ci man laa faj kon alxuraan it doomu aadama bi ci jublu benn naa kaamil bi jeex na man pare naa ci déedéet déel jël far tuuti moo tax borom bi ne faqra'u ma tayassara faqra'u ma tayassara min alquran te bu ko kenn ba nag alima an sayakunu minkum marda wa axaruna yadribuna fi l wa axaruna yuqaatiluuna fi sabilillah waaye faqra'u ma tayassara minhu alquran boo feebaree jàngal boo dee ci jàngal boo dee jihaad bu mu tax nga bàyyi kon benn ngant bu nit mën a andi bu ko tee mën a jàng alquran amul ndax alquran mooy li nga xam ne moo koy saxal ci diine dafa mel ne garab gi nga jëmbat saa boo bàyyee suuxat rek garab gi commencé lax gannaaw da ngaa jëmbat iman ci sa xol nag alquran moo koy suuxat wa isa tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana soo bëggee sa iman di dëgër jàngal alquran wala nga déglu fu ñu koy jàng alquran naka lay saxalee nit ki ci ngëm yàlla ak ci diine la ca jiitu mooy alquran day gën a jëmbat ngëm daf koy suuxat alquran dafay sellal sa bakkan ci jokkale gi lay jokkaleeg yàlla sooy jàng alquran dafa mel yaa ngi toog ak suñu borom tabaraka wa taala di déglu ay waxam ñaareel ba alxuraan soo koy jàng aaya dafay wàcc ci sa xol bi ci andi ak seddaay di ci andi kóolute di ci andi ak dal ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sooy jàng alxuraan sa dafay dal alxuraan soo ko dee jàng li tax mu man laa saxal daf lay jox ay gisiin yu leer yoo xam ne da nga ci mën a sukkandiku mën a jubbanti li la wër li la wër nga mën cee xàmmee li ci baax ak li ci baaxut kooku alquran moo la koy wax moo lay corrigeel yi baaxul te wër la jubbantil la itam yi nga xam ne moo baax nga mën koo topp mooy nekk balance bi nga xam ne ci ngay nattee nattukaay boo xam ne bu équilibre lay doon waaye du doon nattukaay boo xam ne day am contradiction bu jamono ñëwee nga natte nii bu nit sàngam ñëwee nga wax ak moom nii waaye su fekkee alxuraan ngay doxe nit ku ñëw wala jamono ji soppiku du jeexital ci saw gisin saw gisin benn rek lay doon ndax ci borom bi tabaraka wa taala nga koy jëlee alquran moo lay tontul lënt lënt yi nga xam ne noonu lislaam yaa ngi koy andi ak naafiq yi di joxe ay misaal ngir di jéem a génn nit ci seen diine boo seetloo jeexit yi nga xam ne aaya bii di suñu borom tabaraka wa di wax ne ma waddaaka rabbuka wa maa qala ndax yëpp yi dañu doon wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom day boroomam bana ko yàlla bana ko ndax booba alxuraan daal dañoo na ñëw ñu ne moom kat yonent bi yàlla da ko doon yónni waaye far na ko ba aaya bi daal ci waaj wàcc ne ko sa borom bàyyiwu la te bañu la maa waddaaka rabbuka wa maa xala xam ngeen ne loolu dana gën a dëgëral yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën koo dollu kóolite ci li nga xam ne moom la nekk xam ngeen wax ji nga xam ne moom la naafiq yi doon wax itam naan izan lii wala taxsin nii man may ma ma toog bul ma fitnaal bul ma yóbbu ci ab xare ma fay gis ay jigéen yoo xam ne dañ may fitnaal suñu boroom ne ala fil fitnati saxatu kooku naan bul ma fitnaal moom daanu na ci fitna ba pare kon xam nga loolu day gën a dëgëral jullit ñi ñoom te la ñu nekk ànd ga ñu ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca xare ba loolu kon ci la ñuy mën a xam teqale différence bi am diggante koo xam ne mbiram yépp da ko takk ci alquranul karim ci di ko jàng di ko mokkal di ko firi di ko settantal ci alquran lay départ ci alquran lay jël ci kooku wuute naa ki nga xam ne waxi doom aadama mooy yitteem lu muy wax lu ne ak lu muy tegtaloo danaa la nit ñi nee nañ ki nga xam ne moom ci alquranul karim lay jël ci kooku dana wuuteeg kooku lool ab taxawaay akub doxin ñaareel ba ci liy saxal nit ci diine mooy nga tënku ci sharia tey jëf jëf ju baax ndax borom bi tabaraka wa moo wax ne yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabit yàlla day dana saxal ñi gëm yàlla ci kaddu googu nga xam ne mooy kaddu laa ilaha illa allah fi l xayaati dunia wa fi l axira xataade bu dee ci àdduna day ni leen yàllay saxale ci laa ilaha illa allah mooy ñu sax ci lu baax ak di jëf ci lu baax ku ne ci àdduna tënku ci sunna di jëf lu baax kon sax nga ci kaddu laa ilaha illa allah wa fi l mooy soo delloo ci sa bàmmeel malaaka yi dina laaj suñu borom tabaraka wa taala saxalal la tontu lu jub nga daal di tontu borom bi ne walaw annahum faalu maa yuazuuna bihi la kaana xayran lahum wa ashadda tathbita nee na nit ñi de bu ñu defoon ñu leen di waare lii ñu leen di digal ci diine bu ñu ko defoon kon day mooy gën ci ñoom te moo leen di gën a ci ak njub moo leen mën a saxal ci diine loolu kon lu leer naññ la wa naka lañuy mën a yaakaare ci ñu tàyyal ñi nga xam ne dañuy jekki duñu jaamu yàlla ñooñu bis bu fitna ñëwee ay sóona ñëw ñooñu naka la mën a yaakaare ci ñoom ak sax ñi ñuy yaakaar ci ñoom ak sax moo ñu tënku ci jaamu yàlla ñooñu su fit na ñëwee dañuy mën a muñ dañuy mën a sax dañuy mën a dëgër bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne itam dana dimbali nit ci sax ci diineem di santatal xistay yonent yi ak di ko jàng ak di ci jéem a roy suñu borom tabaraka wa taala moo wax ne wa kullan naqussu alayka min anbaai rusul maa nu sabbitu bihi fuaadak mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam danaa la nettali ci xibaari yonent yi weesu woon loo xam ne dama ciy dëgëral sa xol sa xol gën a dëgër ndax xol bu dëgër boobu kat sax ci diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax daf koo aajowoo ndax suñu borom mu koy wax ne walaw laa an sabbatnaaka la xadd kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila ne ko bu ma la saxalul woon yow Muhammad ci diine kon da nga jeng fekk gaa yi bootul lu mu tuuti tuuti da nga jeng fekk leen ko léegi yonente bi alayhi salatu wasalaam nag moo aajowoo tas bi boobu moo aajowoo saxal boobu kon keneen ku dul moom taxul ñuy wax moo tax kon aaya yooyu doon wàcc di nettali xisa yonent yi wàccul woon rek ngir di bégalaate waaye dafa am jubluwaay bu rëy bu ko tax a wàcc mooy saxal xolo yonente bi alayhi salatu wasalaam ci diine saxal xoli jullit ñuy dem ci diine boo seetloo wax gi suñu borom tabaraka wa taala di wax ci ibrahim alayhi salaam nee na nitam ñu ne lakk leen ko xaaloo xarraqoohu lakk leen ko dimbali leen xërëm yi borom bi ne xul naa man yàlla maa wax ne yaa naaru yow sawara néeg ndigal ngay déglu koo nii bardan wa salaaman ala ibrahim xam ngeen ne luy dox ci àdduna rek ndigalu suñu borom tabaraka wa taala lay déglu kon safara bu ñu defee ne dafa am doole lakke ci saabu ko neexee bu jotee ndigal rek lay lakke suñ borom ne yow sawara nekkal sedd bu ànd ak jàmm ndax sedd itam mën naa nekk musiba bu àndul ak jàmm moo tax borom bi ne ko kooni bardan waaye wa salaaman ala ibrahim borom bi ne wa araado bi si kaydan dañ ko doon fexeel waaye fa jaalnaahum al axsarin def naa leen ñu ñu perte aaya boobu bu ko nit ki seetantalee dana ko gën a dolli tasbit rawatina bu nekkee ci kanamu ay fitna kanamu ay noonu ñu koy sonal mu fàttale ko ibrahima foofu mu jaaroon ak boromam dana am kóonte ne sunu borom tabaraka wa taala am na kattan ci wallu ko am na kattan ci dimbali moo tax ibnu abbas ne ibrahima la mu mujj wax bañ ko sànnee ca safara wa mooy xasbiyallahu wa ni'mal wakil bam bañ ko daane bam daanu ca biir safara wa kàddu googu la wax xasbiyallah wa ni'mal wakil te suñ borom moo laaj ne alaysa allahu bi kaafin abda mu ndax yàlla daf lay wëddu alaysa allahu bi kaafin abda wa yuxawifuunaka billadina min duni ñu lay jiital ci leneen lu dul yàlla te yow nga wéeru ci yàlla ku wéeru ci yàlla waratoo am dara looy tiit moo tax boo xam ne fala taqaafuhum waxaafooni in kuntum muminin bu leen leen ragal ragal leen ma bu fekkee gëm ngeen yàlla kon alquranul karim bu ko nit ki dee settantal di settantal xista yooyu boo settantalee Moussa alayhi salaam ba ma demee ba jàkkaarloog firawna firawna di leen dab falamma tara aa aljamaan ñaari mbooloo yi gise nañu qaala ashaabu Moussa gaa yi ànd ak Moussa ne ko inna la mudrakun Moussa dab nañ ñu jërëtul muy daw géej gaa ngi nii firaaw naa ngi nii ci suñ gannaaw Musa ne kallaa inna ma'iya rabbi sayahdin kenn mënuloo dab foo ko teg mu ne inna ma'iya rabbi yàlla laa àndal te sayahdin dana ma wax fu may jaar xam ngeen ne tuma anina boobu ak yaqin boobu la ko maye mo ngëm yàlla gu fees dell loolu bu ko jullit bi settantalee dana la dolli ak sabaat sax ci sa diine rawatina ci kanamu ay fitna ci kanamu ay mbugal yu ñu la bëgg a teg nga fàttali ko foofu Moussa toll woon fàttali ko fa Ibrahima toll woon ak na leen yàlla musale loolu da nga gën a dolli saxal ci diine naka noonu soo seetloo xisab jibar ya Firaaw na doon jibarloo nga xam ne mbooloo mu néew lañu waaye ci dëgg lañu nekk da nga gis kon ne maanaa bind bu mag ci lu aju ci tasbir sax ci diine mas na ko ca jàng ba leen Firaaw na tëkkoo ne leen a amantum lahu a amantum lahu qabla an aazana lakum waaw yéen da ngeen di gëm Muusa te joxuma leen ndigal nee moom moo war a joxe ndigal kuy gëm ak kuy weddi kenn wërta gëm te tàgguwoo ko mu ne leen innahu la kabirukum alladi allamakum sixra Muusa mooy seen kilifa gi leen jàngal ak njibar waaye fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf danaa dagg seen loxo yi dagg seen tànk yi bu ma daggee loxom ndeyjoor dagg dagg tànku càmmoñ su ma ca noppee nag ma daaj leen ci ak ci tàndarma yi wala usi ban wala usallibannakum fi jusoo in naxli wala taalamunna ayuna asaddu azaban wa abqa da ngeen xam maag yàlla jooju Moussa di wax maag moom kan moo ci gën a tar bugal waaye lu ñu ko tontu xaalu lan nu'siraka ala ma jaana min albayinat ñun du la jënd mukk lu leer lii ñu jox wala si fatarana ak yàlla ñu nu bind faqdi ma anta xaadin loo mën defal innama taqdi hadi alxayat addunia inna amanna bi rabbina li yaxfir lana xataayaana wa ma akrahtana alayhi min alsihr wallahu xayrul abqa loolu soo ko seetantalee ngëm yàlla dina gën a dëgër ci sa xol te kat diir bu néew ñu ngi toogoon ci kanamam naan ko a inna lana la ajran ndax suñu la gañeelee Moussa da nga nu fay dara mu ne leen innakum idan la min al muqarrabin li ma leen di faye mooy da ngeen bokk ci ñi ma jege ba ñuy commencé ñuy jiñ ci naa ko fa bi izzatika ci sa tedd nga sa mbaax yow Firawna danañ gañee waaye bi jotaay bi daanaka jeex joxor bi o ko ne ko loo man defal faaleetul la ndax booba ngëm yàlla dugg na ci seen nga xam kon ngëm fi muy jëlee nit ak fi mu koy jóg ñàkkal la fayda léegi ba lay ki ci kii di giñ ci barkeel nga di ko joxor bi o ko loo man defal doo kenn te jotaay bi sëfagu faqdi ma anta qaadin innama taqdi hadi alxayaatu dunia o noonu soo seetante la qisatul mumin bi suñu borom di nett li ci suratu yaasin mu naan yaa xawmi ittabiu almursalin ittabiu man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya laa abudu alladi fatarani wa ilayhi turjaun a attaxidu min dunihi alihatan in yuridi rahmanu bi durrin laa tuxli anni safaatum sayan wala yunqidun inni idan la fi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasmaun moomin boobu suñu borom nekk suratu yaasin nga xam dafa wax nitam ñe ne leen gëm leen yonent yi yonent yi nga xam ne ku leen topp ñu jubal la te duñ la laaju fay man de ñooy ñoom laa àndal waaye ba ñu paree qiila duxuli janna borom bi ne ko dugal ajjana qaala yaa layta xawmi yaalamuuna bi maa xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ba mu faatoo mu ne ak a neexoon sama mbokk yi xam lii ma yàlla fay ajjana jii ma dugg ak a neexoon ñu gis ko kooku itam la ko may loolu mooy sax gu mu sax ci diine naka noonu muuminu aali firawna bi suñu borom di nett suratu xaatir kay wax naan yaa xaw bi maa li adookum ila najaat wa tadoo na ni ila naar tadoo na ni li akfura billah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fi al-akhirah wa anna maraddana ila allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar lu mu ca teg mu ne leen fasatadkuruna ma aqulu lakum lii ma leen di wax bis dana ñëw ngeen xam ko man nag wa ufawidu amri ila allah sama mbir yëpp delloo naa ko yàlla borom bi ne fa waqaahu llahu sayi'aati ma makaru fexe yu ñaaw yañ ko doon fexeel yëpp yàlla musal na ko ci naka noonu soo demee ci ashabul uxdud bokk na ci wasaayil yi itam nag di ñaan yi lay saxal ci diine ndax ñaan dafa bokk ci melokaani yi nga xam ne dañoo gën yàlla dañuy jublu ci suñu borom di ñaan mu saxal nu moo tax ñu wax naan rabbana laa tusi xulubana baada id hadaytana yàlla yàlla boo jàngalaat sun xol yi gannaaw bu mu jubee ba pare ndax xol dana jub ba pare gis ak njub gannaaw bi ay bànneex ak seytaane ak ay lënt-lënt ëpp ko doole ba jàngalaat ko ñu ñaani rabbana afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana yàlla yàlla na nga nu sotti ak muñ te saxal suñu jéego ndax kat yonent bi alayhi salaatu moo wax ne xoolu doomu aadama dafa nekk ci diggante ñaari baaraami suñu borom tabaraka wa taala moo koy wëlbatee nu mu ko soobee moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan bari lu muy wax naan yàlla yow miy wëlbati xol yi yàlla na nga saxal suñu xol ci sa diine yaa muqallibal qulubi wal absar sabbit qalbi ala diinik yàlla na nga saxal sama xol bii ci diine ñaan googu lu mag di ñaan la bokk na ci liy saxal nit ki ci diine itam di bari looy tudd yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ne yaa ayuha alladina amanu ida laqitum fi'atan fasbutu waaye waskurullaha kasira yéen ñi gëm yàlla su ngeen dajeeg ay yéefar di xeex ak ñoom fasbutu bu kenn daw na ngeen sax waaye na ngeen bari lu ngeen tudd yàlla allahu akbar dee leen wax allahu akbar kon jullit coono wala mu ne ci jafe-jafe nay dellu ci borom bi tabaraka wa di wax allahu akbar di tudd yàlla lu bari waskurullaha kasira moo tax yusuf alayhi salaam ba nga xamee ne fitna yi jigéen taxaw na ci kanamam jigéen joo xam ne ju am taar la jigéen joo xam ne ju am daraja la ne ko haytalak woo ko ci boppam lu mu wax dafa làqu ci muslu ci suñu borom tabaraka wa taala xaala maasa allah yàlla tere yàlla ma ci yàlla musal kon dellu boobu mu dellu ci suñu borom tabaraka wa taala ci la ko suñu borom aare ci duusi bànneex yooyu ko naroon a yóbbaale ba mu naroon a lax ci biir kon nit bu mu naw naw boppam bu mu wéeru ci kàttanu boppam ne wéeru ci suñu borom tabaraka wa juróom-benneel bi ci yi nga xam ne dana dimbali nit ci sax mooy nag nga soobu yoon wu wér te yoon wu wér kat tariqu ahli sunna wal jamaa yoon wi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i saabaam yoon woowu nga xam ne mooy yoonu mucc yoon woowu nga xam ne mooy fas-fas bu sell te mooy topp sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam topp dalil dalil lu la waaye wax ci diine ne la andil dalil qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin loolu la borom bi wax lu la waaye wax nangam baax na nangam baax na nga ne waaw rek dal ci amee dalil ba wax ju amul dalil moom wëñ gu ñuy ñëw booy ñëw te façon wëñ nga loo ñëw ñëw ñëw def sa woon ji boo ñodde muy dem loo ñëw lu mboros mi bari bari bari bari bala faa ñëw baa des day fekk ne fas nga wëñ bi sa départ ba ba pare waaye wax yi lu mu bari bari bari li fekk waa ji andeegul dalil bul jàppagul dee ko déglu rek xanaa balaa teeral da doon lii may wax nag maa ngi ko teg ci aaya sàngam wala maa ngi ko teg ci wax yonente bi alei salatu wasalaam wala maa ngi ko teg ci waxi borom xam-xam yi waaye wax ba ne xaaw rek wax ja neex na ci ni dégg ñu fottasu dal di ko ci dama koo wala dañ koo feeñu wala sama maama ko wax wala sama bàyyi ko wax yooyu yëpp duy dalil yàlla ki mu yónni mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam wa amanu bi ma nuzzila ala muhammad wa huwa alxaqu min rabbihim nee na la wàcc ci muhammad doo ngay dëgg dalil doonu mën a andil ci wàccul ci yonente bi alayhi salatu wasalaam baatil la du dëgg foofu la nit ki war a jafandu su ko defee kenn du ko mën a réeral moo tax soo bëggee xam xii may sax ci sunna yonente bi alayhi salatu ni mu mën a bàyyee nit ki ci diineem dangay ngay xool li xam ci ay nit ñoo xam ne réeroon nañu topp ay bidaa nekk ca ba faatu ca ak itam nit ñoo xam ne réeroon nañu topp ay bidaa suñu borom jindi leen delloo si leen ci siraatal mustaqim waaye ndax da ngay gis kenn ci ahlu sunna wal jamaa koo xam ne dëgg leer na ci moom mu soobu yoonu dëgg woowu ba yàgg mu bàyyi ko te boo ko ba mu ko bàyyee soo ko laajee danaan la damaa gis lu ko gën a wér wala damaa dem ba xam ne yoon wii ma jaaroon baatil la loolu doo ko gis mukk koo gis mu bàyyi ko kay naa am dana am ñu ko bàyyi léeg-léeg wala yaasu billah dana am ñu nekk ci siraatul mustaqim ba yàgg léeg-léeg wala yaasu billah ñu bàyyi ko waaye la leen ko yóbbee topp bànneex moo leen ko yóbbee wala ay lënt lënt moo leen ko yóbbee su ko defee seen xel mu doya di ñu lëndamal seeni bët ba ñu defee lii ñu mujj a dégg muy dëgg bañ bàyyi yoonu wér ba ñu nekkoon waaye kenn ku koy bàyyi koo xam ne da nga damaa mën a am dalil bu wér na du dëgg loolu loolu li koy gën a tegtale xiraq la xiraq la benn buur la woon boo xam ne yonente bi alei salatu wasalaam yónnewoon na ko leetar pour mu dugg ci diine ba fa Abu Sufyaan demee dafa laaj Abu Sufyaan ne ko waaw seen waa jooju di woo ca diine ndax gis ngeen kenn ku dugg ci diineem ba yàgg ba mu wartasaat génn mu ne ko déedéet nit ñi kay dañuy dolli ko waaye wàññikuñu mu ne ko al iman hakaza al iman xiina tuxaalitu bashatatuhu l qulub mu ne ko ngëm yàlla noonu la mel su fekkente ne dem na ba jaxasoo ko xol duutu mën a tàggoog koomati adis boobu Buxaari yi solo na moo tax gis nañ ñu baree baree baree bare ci ay ponkal yoo xam ne dañoo nekkoon ci caaxaan nekkoon ci pas-pas yu wérul yàlla gindi leen ñu ñëw ci dëkk rëcc lool nag la ñu nekkoon bindaat ay téere wér ne la doon wax lépp waaye ci safaan bi moom gisuñu ko kenn koo xam ne nekkoon na ci siraatul mustaqim mu leer ci boppam sunna leer ci boppam ba yàgg mu bàyyi ko bind ay téere layal ne li ma nekkoon daa gis naa lu ko gën a wér déedéet bu danaan gis na lu gën a neex wala gis na fu mu amee alal wala gis na fu mu amee daraja wala gis na fu mu amee nguur seytaane yóbbu ko bu bàyyi loola waaye du mën am benn dalil ci ne dafa gis lu gën a wér li mu nekkoon kon nag mbokk yi koo xam ne bëgg naa mucc na sax ci yoon wi nga xam ne mooy sabilul muminin te mooy yoonu yonente bi alayhi salatu wasalaam moom la borom bi ne waman yutaqiqi rasul min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira rabbana la tusi qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab rabbana afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain